di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Rewmi FM 97.5 nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé mbokk yi démb ñu ngi taxawoon ak yéen ci buntu bi nga xamante ne mooy. mbaaxu yàlla ci jaamaam yi rawatina xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ci ñàkk jëf bàkkaar ba yeneen bi ne bu ngeen ko nekkee wutoon di jéggalu yàlla mu di leen jéggal ni konte woon dina leen fi jële andi fi ay jëmm yoo xamante ne dañuy bàkkaar gannaaw loolu ñuy jéggalu yàlla yàlla di leen jéggal démb fa la ñu taxawoon ak yéen ba léegi ñu di leen fàttalin ci wax boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullahu taala ne yow doomu aadama bi de xamal ne bés ay ñëw di jaar di jàll moo la fi tax a nekk moo la fi tax bàyyi ba tax na danga nga war a bàyyi sa xel bépp bés ba ñëw jàll xamal ne bés boobu dootut ñëw te am na lu mu yóbbaale ci sa dund bi ba tax na njëlbeenu bés boobu gannaaw bu ñu yàlla maye ñu jógee ko ci nelaw la yonent bi ne noonu la ñu war songee bés ba la yonent ne noonu lañu war a war la ñu war duggee ci bés bi nañ leen jël def ko royuwaay ñu duggee noonu ci suñu bés gannaaw bu ñu joxee farata ci waxtu yu néew ci ginnaaw lañu dogg julli fajar kon nañ leen jàng adkaar ba ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nit ñu di ko baaxe ci daara ji fii ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar mooy baat yi nga xamante ne yonent neena nee jullit ba yeewu ci nelaw nanga ko tudd na nga ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur xëytu adkaar yi bari nañ waaye lii lenn la ci yonent bi baaxee ko sallallahu alayhi wa sallam ba tax na yooyu ñuy jaar di jàll di dem bu dee ubbi nga sa bés ci ñaan wi amaana borom bi tabaraka wa taala dina la taxawee gannaaw boo ko delloo njukkal sant ko ne ko yaama faat waaye yaama may occasion ma dund te ci yow la ñuy dellu du ñàkk borom bi loo ko ñaan ci bés bi mu defal la ko waaye dumuyu la yonentu bi andi dem suubu ci leneen lu wuuteeg njàngale yonentu bi loolu éeréel gënu koo weesu yal nañ ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam ba léegi xam-xam boobu di xasanul basri rahimahullah moo ñu baaxee ba léegi ci beneen baat bu am solo ci nasiha yam doon baaxee askan bi bi laayee biir bu mu laayee biir askan bi mooy qaala xasanul basri rahimahullah xasanul basri yal na ko buur yàlla dolli yërëm nee na aata allahu ahadan cheyan min ad illa ixtibaaran wala necmahu wala manaahu illa ixtibaaran xasanul basri rahimahullah na ko bul yàlla yokk yërmande nee na maa aata allahu axadan cheyan min addunia illa ixtibaaran wala manaahu illa ixtibaaran boroom xam-xam yi di xasanul basri nee na maa aata allahu ahadan amul kenn ku yalla jox shay'an bépp mbir min adduniya fii ci àddina illaa ixtibaaran lu dul yàlla da koy essayer examiner ko xool ba xam wala manaahu amul dara lu yàlla xañ nit ki fii ci àddina illaa ixtibaaran lu dul dalay examiner nattu xool ba xam kon yow mi yàlla jox fii ci àddina ak lum la munti jox xamal ne dalay essayer dalay éprouver dalay examiner xool ba xam noo koy doxale waaye yow mi yàlla xañ sa mébét sa la nga sopp sa bëgg-bëgg yàlla xañ la ko walla mu duggal ci retard nee na yàlla loolu mu def dala ciy xool ba xam dala ciy essai ba xam nga déggee ci wax ji ne yow mi yàlla jox sa bëgg-bëgg yow mi yàlla antul say mëbét yow mi yàlla jox lanka doon ñaan ak noo ko bëggee ak foo ko bëggee mu defal la noole fii ci àddina ci lépp nag xamal ne dala ciy essai dala ciy examiner épreuve la di la xool ba xam nooy doxaleek loolu nga mébétoon loolu nga doon ñaan boo ci defee lu baax raw nga boo ci tënku ci lala yàlla tënk mucc nga baax na waaye boo ci defee lala yàlla tere sànku nga kon lépp li la yàlla jox fii ci àddina ci li nga bëgg mu doon sa xemmemteef mu doon say bëgg-bëgg xamal ni yàlla dalay si examen dalay si examiner xool ba xam nuy doxale loolu mu la jox mu ne tamit wala manaahu illa ixtibaaran amul dara lila la yàlla di xañ fi ci àddina wala mu duggal ci retard nga yiix see jot wala jotoo ko faf defu ko dara lulul dalay xool ba xam nuy dundeg loolu mu la xañ noy dunde loolu nga mébétoon waaye jotoo ko te yaa ko ko doon ñaan li la yàlla jox fii ci àddina xamal ne dalay essayer xool ba xam waaye amul dara lim lay xañ lu du dalay essayer xool ba xam kon yow mi yàlla jox nang jëf ci lim la jox lépp lu koy kontaan loo waaye yow mi yàlla xañ génneel tàllal loxo ñaan yàlla te nga xool ñal ñàlla féetee ci suuf xam ne nu munti mel am na ñi nga tane kon li la yàlla xañ ni warut laa saalit loo ba ngay wax loo waruta wax ba ngay jëf loo warut jëf wala di dem foo warut dem ndax yàlla mi ko moom te ci moom la nekk moo la ko xañ kon xamal ne lam la xañ noonu mooy li gën ci yow waaw bu gënutoon ci yow ni kon jox na la te xamuloo sax li gën ci yow moo tax mu ne maa aata allahu ahadan shay'an min ad-dunya illa ixtibaaran amul kenn ku yàlla di baaxe dara fii ci àddina la nga mébatoon mu jox la ko lu du dala si essayer di si nattu xool ba xam wala manaahu illa ixtibaaran amul dara la muy xañ doomu aadama bi ca bëgg-bëggam wala ci ay mébétam lu dul yàlla dakay xool ba xam nu muy demee dala yàlla jox yàlla dala si essay xool noo koy doxale waaye lépp lum la xañ tamit dala si xool essay xool ba xam noo ciy doxale ci la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa yar ñu màggee ci keppaaru sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ñu doon taabiuna yi mu doon xasanul basri rahimahullah mbokk yi yal nañu yàlla boole defal dégg ak topp yal na leen yàlla defal jàmm ak seeni njaboot bi léegi yéena ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bi fii ci Rewmi FM 97 point cinq ñu toxu dem ci ñaareelu bunt bi fekk fa xadiisu abi hurayrata radiallahu an qaal jëlee nañ xadiis bi ci saxaabi bi ñu naan abi hurayrata radiallahu anhu nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yataaqabuuna fiikum malaaikatu billeyl wa malaaikatu binnahaar wa yajtamiuuna fi salaati subhi wa salaati alasr summa yacruju alladina baatuu fiikum fa yasaluhum allahu wa huwa aclamu bihim kayfa taraktum cibaadi fa yaquuluun taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun rawahu buxaari wa muslim mbokk yi gis ngeen waxtu yi julli nu ñu amee importance abi hurayra radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu yataaqabuuna fiikum malaaikatu billeyl wa malaaikatu binnahaar am na ay malaaka yeleen di rond am na ay malaaka yi ñëw di def rond di leen wur di dem ñëw di jaabante seeni biir malaaka yooyu ñooy malaaka yay am sarwiisu bëccëg ak malaaka yuy am service guddi malaaka yuy am service su guddi ak malaaka yuy am service su bëccëg ñii dañuy ñëw rond dañuy ñëw wóor nemmeeku leen ci guddi bu ñu demee ñeneen ni ñëw nemmeeku leen bëccëg xanaa du lii la euh, lenn ci société yi roote inspiration bi mel ba tax na ñu am kaaru guddi ak kaaru bëccëg naam fii la kon malaaka yuy nekk kaaru guddi ñoom bu ñu ñëwee après dañuy dem malaaka ya war a ñëw kaaru bëccëg ñoomit bu ñu ñëwee ñu liggéey lañuy liggéey dañuy dellu fa yàlla moo tax yonent bi nee na yataaqabuuna fiikum am na ay malaaka yu nga xamante ne dañuy rond di wecc wanteg ñeneen ni ay waxtu ñii dañuy ñëw kaaru guddi après ñu dem ñeneen yeneen malaaka yi ñëw kaaru bëccëg yonentu bi nee na kaaru guddi be kaaru bëccëg bi wa yajtamiuuna fi salaati subhi wa salaati asr wa yajtamiuuna fi salaati subhi wa salaati al dañuy daje waxtu yu julli ba ñu doon joxe ci waxtu su néew ci ginnaaw muy julli suba wa salaatul asr ak weneen waxtu ba ñuy waaj a digmal ci kanam tuuti muy waxtu yu julli takkusaan malaaka yuy ñëw waxtu suba muy waxtu bu ñu julli woon ci waxtu yu néew ci ginnaaw ak yeneen malaaka yuy ñëw waxtu yi takkusaan nga xamante ne mu ngi digmal ci kanam nee na summa yaruju alladina baatu fiikum malaaka yu am kaaru guddi malaaka yu ànd yen ci guddi malaaka yu fanaanti ci guddi dañuy yéeg jëm fasani borom moo tax mu ne summa yaruju ledina baatu fiikum malaaka yu géere kaaru guddi te ñu fanaana ndoor ak yen ñu paase guddi bi ak yéen julli waxtu julli suba bu paree malaaka yi dañuy dellu dañuy dellu fa seen borom fa yasaluhum wa huwa aalamu bihim borom bi daldi di leen laaj te moom yàlla moo leen gën a xam fu ñu jógee ak nañ fa nekke la leen borom bi di laaj da leen di laaj ki bugg xam laaj boobu ak nu muy demee ak la malaaka yi tontu na muy demee nang ñu jàpp ci réew mi FM 97.5 fii ci waxtaanu fajar sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee xadis bi nee na bu leen seen boroom laaje kayfa taraktum ibaadi yàlla mi xam malaaka fu ñu nekkoon yàlla mi xam lañ fa nekkee woon yàlla mi xam nañ fa nekkee ak ñan fa nekkal ak nañ fa nekke day laaj malaaka kayfa taraktum ibaadi nu ngeen bàyyee sama jaami ana sama jaami noo leen bàyyee malaaka yi ndegem dañoo juleen door suba ak jaamu yàlla yay fréquenté jàkka yi malaaka yi dañuy seede fa yaquluun dañu naan taraknaahum wa hum yusalluun bàyyi nañ leen ñuy julli ba léegi malaaka yi continue di tontu wa ataynaahum dikkee nañ leen fekk leen waxum yu solluun fekk ñu ngi julli kon malaaka yu yéeg ci julli fajar bu ñu paree julli fajar malaaka yi dañuy seede mbooloo bu teewe jàkk àddina bi waxtu julli fajar malaayka yi dañ lay séede fa yàlla malaayka yii di ñëw ci ngoon pour ñëw fanaan si ñoom bu ñu ñëwee waxtu yi takkusaan lañuy wàcc ci jàkk yi kon yow mi ñuy déglu yow mi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew mi FM 97.5 ngalawaay même bu dul dara fexeel malaaka yi seede la sa giiru dund ngay teewee julli fajar ci mbooloo bi ci jàkka ja ndax malaaka yi man laa seede si kanamu sa borom ëllëg bés penc ne jëmm ji de buñ daan wàcc ci jàkka ji ci fajar dinañ ko fekk mu taxaw ci sappe jëmm ji buñ daan wàcc ci jàkka ja ci waxtu yi takkusaan dinañ ko fekk mu taxaw ci sappe yi waaye jëmm ji de buñ daan yéeg jamono yi waxtu yi julli fajar ci jàkka ja lañ ko doon bàyyi mu toog ñii naan jëmm ji de buñ ko doon bàyyi ci jàkka ja waxtuy takku takkusaan day fekk julli na ba pare mu toog kon ñaari waxtuy julli kenn di ko respecté ci heure julli ak yeneen waxtu yi lu dul malaaka yi dinañ la seede fa yàlla lu dul malaaka yi dinañu seede ci yow wax ju rafet képp ku ñu seede fa yàlla ni jaambi de bu ñuy wàcc ci suuf dinañ ko fekk mu jàpp waajalal boppam dox ñëw jàkk ja bu ñuy yéeg dinañ ko bàyyi ci jàkk ja loolu képp ku ko malaaka yi seedeel bés sa mbir am nañu yaakaar nii lañuy déggee maanaa xadis bi kon julli suba ak julli fajar ci képp ku mu diis képp ku muy tayalloo xadis baa ngi nii na nga takk sa ndigg xar sa tànku tubéy nga ne man suba duma raw ci jàkk yi julli suba duma mosa raw ci jàkk ji jeex na nga fas yéene waat ne julli takkusaan moom kañ beneen affaire la ñuy wax match football match nawetaan championnat ak yi ni mel bum la tax ñàkk julli takkusaan ndax li ñu wax ni yëpp jamono ci moment wii lay commencé làmb basket ak li ni mel bum la tax a faatu waxtuy takkusaan imaginer la ngay seetaan ca la nga nekk di jël sa temps consacré ko ci loolu du la seede ci kanamu yàlla dara kon lalay lay seede ci kanamu yàlla ña la seede fañ la fekk lañuy wax ni diw sangam bàyyi nañ ko béréb sangam fañ la bàyyi buñ daan dem bu ñu demee dañ naan diw sangam béréb sangam lañu nekkandoor ak moom fa lañ ko fekk fa lañ ko bàyyi waaye bu fekkee ne malaaka yi bu ñuy ñëw ci jàkka ja yaa ngi toog bu ñuy dem ñu bàyyi la fa yaa ngi toog joxe farata ba pare subhaanallah ana lii li ko gën amul munoo toog fenn malaaka yi ñëw jóge ko foofu dem yàlla du leen laaj sax fa ngeen jóge ndax malaaka yii di yàlla di laaj fu ñuy jóge ko mooy ci jàkk yi kon ñu déggee ci maanaa xadis bi malaaka yi duñu dem feneen fu fudul ci jàkk yi ndax yàlla suñu borom tabaraka wa mi leen di jox ndigal ngir ñu wàcc bu ñu wàccee duñ dem fenn fudu ci néegu yàlla yi ñuñ fa fekk ñu enregistré leen ba ñuy dellu fa yàlla ñu ñu fa bàyyi la ñuy enregistré seeni tur ak seeni jëmm kon yow mi nekk sa kaw lal yow bokkoo jamonoy fajar yow mu topp sa bànneexu bakkan ci guddi bi yëpp fajar bi xar nga sonn tayal dagale sonn nga dem daal di plongé bu say kaw lal ba jant bi yee la ngay këpp ko palaar tey dama sonn tey tey tey tey di wax lu kenn xamul fauché nga raté nga seede yàlla malayka yi war a seede fa yàlla ndax bu fekkente woon guddi bi danga reer toog tuuti julli safak huit tëdd ah di nga am possibilité pour yeewu ci guddi daal di taxaw taxawaayu naafi la waxtu su gàtt nga daal di dégg ñu naan la assalaatu xayrun min annawm julli de moo gën nelaw ya ngeen nekkee di nelaw nga daal di jóg ndànk jàpp set belaab daagu ndànk dem ci jàkka ja dem joxe waxtu bu njëkk bi nga xamante ne moom lañ doon joxe ci ginnaaw tuuti muy juli suba su ko defee malaaka yi jamono bu ñu yéegee ci kaw yàlla di lañ laaj kay kayfa taraktum ibaadi na ngeen wocce sama jaami nangeen ngeen bàyyee sama jaami fa yaquluun malaaka yi ñuy wax ne taraknaahum wa yu yusalluun bàyyi nañ leen fekk ñu ngi nekk di julli yeneen malaaka yi yay ñëw ci waxtuy takkusaan ñoom lañuy wax mooy wa ataynaahum ñëw nañu fekk leen wa hum yusalluun ñoom ñu ngi nekk di julli kon malaaka bi nee na bàyyi na la ngay julli benn malaaka bi nee na ñëw na fekk ngay julli mais anakan moo lay seede fa yàlla lu ñaaw amul subhaanahu wa nii lañuy ñuy déggee maanaa bi nii lañuy ñuy la nga xamante ne moom la malaaka yi di tontu seen boroom subhaanahu wa ta'ala moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yataaqabuuna dina leen wur dina ñu rond fiikum ci yéen malaa'ikatu billeyl malaaka yi ñëw ci kaaru guddi wa malaa'ikatu binnahaar ak yeneen malaaka yay ñëw kaaru bëccëg wa yajtamiuuna fi salaati subhi wa salaati al asr dañuy dajee ci jàkka yi jamonoy waxtu yu julli suba ak jamonoy waxtu yu julli takkusaan yow mi dëkkee di julli suba ci jàkka yi résultat bi yaa moom yow mi bëgg am résultat bi te amuloo ko gannaaw bi nga déggee xadis bi ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci Rewmi FM góor-góorlul gaawal na nga fas yéene di fréquenter jàkka yi ci waxtu yi fajar ndax malaaka yi ñëw ñu war a ñëw bëccëg fajar lañuy ñuy wàcc ñu fanaan ak ñun fajar la ñuy yéeg malaaka yi war a ñëw bëccëg ñoom takkusaan la ñuy yéeg ñu war a ñëw guddi takkusaan la ñuy wàcc moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na way yàggi tamiuuna fi salaatu subhi dañuy daje ci jàkka yi waxtuy julli suba kon yow mi wàkkeerlu di gémm a góor góorlu di frekante moske bi ci jamono yi suba hadis bi yow lay waxal yow mi dut góor góorlu doo fréquenté mosquée yi doo fréquenté jàkka yi waxtu yu suba gannaaw bi nga déggee xaddis bi ak résultat ya fa nekk kaay kaay bokk ci kay bokk ci xéewal ba nga xamante ne malaayka yi dañuy seede loolu fa seeni boroom yonent bi baaxee ñu ko ci hadis bi ñu di leen ko baaxee ci Rewmi FM ci waxtaanu fajar kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na malaaka yooyu dañuy daje waxtu yi julli suba ci jàkk yi ba léegi dañuy daje waxtu yi julli takkusaan ci jàkk yi mu ne summa yauruju ledina baatu fiikum ganaaw si malaaka yu paase guddi ak yéen ñoom dañuy yéeg dem fa seeni boroom fa yasaluhum wa huwa aalamu bihim yàlla daal di leen laaj te fekk ne yàlla moo gën xam la malaayka yi xam yàlla moo leen xam fu ñu jóge ni ñu fa nekkee ak ñan lañ fa nekkal yàllaa leen gën a xam loolu lim leen di laaj borom bi da leen di ne kayfa taraktum ibaadi ana nu ngeen bàyyee sama jaami duñ leen wax ne bàyyee nañ nuy fecc du leen du ñu wax ne fekken bàyyee nañ leen ñu nekk ci boîte de nuit du leen malaayka yi du ñu wax loolu malayka yi lu ñuy seede mooy fa yaquluun yonent bi nee na malayka yi dañuy tontu yàlla ñu ne ko tarak taraknaahum wa hum yusalluun bàyyi nañ leen fekk ñuy julli ñu di la jaamu ñu war a ñëw ci takkusaan ñoomit bu ñu ñëwee fekk ñuy julli takkusaan ñoomit la ñuy tontu mooy wa ataynaahum wa hum yusalluun ñëw nañ ci ñoom fekk nañ leen ñu ngi julli ñaari waxtu yu julli yi képp ku ko salloo ci jàkk ji di ko fekkee ci mbooloo mi xamal ne saa yu malaaka yi ñëwee ñu fekk la ci jàkk ja nii lañ lay seede fa boroom waaye jamono boo nekkee di julli takkusaan tamit bu malaaka yi ñëwee li mel nii lañ lay seedeel fa boroom ki dul fréquenté ñaari waxtu yi nag yow taxoo ñuy wax hadis bi Buxaari ak muslim ñoo solo mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nara a jébbal béréb ñu war la joxe xibaar yi ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana amin ya rabbal alamin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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa barakaatuhu wa barakaatuhu wa barakaatuhu